waaw mbokk yi ñu ngi ci jamono yu màggalu Touba te ku tudd yoonu murit rek tudd bernde kon lii ñuy jàkkaar lool ay bernde la yoo xam ne xeeti ñam yu bakkane lañu togg ginnaaw ba ñu rendee ay jur jëm ci xar ay nakk ak i gëléem soxna yaa ngoog ñoo koy yéwénal togg ko ba mu jekk ñu koy jox ñi nga xam ne ñooy jaar fii ci njaareem ci buqaatul mubaaraka Jurbel kër gu mag war a dem ca dëkk bu sell ba di Touba dañ leen di jox ay xéewal yu ñu añee wala reer tekki sax ay naanu lu mel ni ki ndox ak uh, yenn xeetu jus yi wala boisson sucrée yi yëpp dañ koy joxe mën nay dem sax ba ci ay fruits yi xam ngeen ne cin yi bëri na lool lii yëpp ci màggalu Touba bi la taalibe yi di ko togg mu nekk ay bernde ñu koy def lu jëm ci safar di ko jox ñi nga xam ne ñooy dëkk ñooy dem ca dëkk bu sell boobu di Touba kon ñu jagleel leen ko ci chaîne ci seen chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin bu ngeen xoolee nag xam ne lu ne dem na ci ci wàllu alal